il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré parce que ça, c'est une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ce pays-là. Le président Magui ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins deux alternances et nous savons comment ça s'est passé et nous savons en sortant, temps comment l'opposition et le pouvoir ont eu à cohabiter de façon responsable et ce qui était un, euh, exercice du pouvoir, ce qui était euh, le président de la République. Nous avons et nous savons comment ils ont eu autant de respect pour les opposants et comment ils ont eu à les ménager pour qu'ils puissent exercer nos devoirs d'opposants. Ce qu'aujourd'hui le président Macky Sall ne veut pas faire, mais c'est à nous, et c'est le cas aujourd'hui, de, de, nous mobiliser et nous allons justement faire face à cette dictature rampante. Oui, mais bien évidemment, bien évidemment. Mais bien évidemment, on ne peut pas rester. Tu peux avoir quelqu'un par plusieurs biais. Di wax rek ni Ken mënul accepter situation bi nga xamni mom vivre ci Sénégal président Macky Sall parce que quand même opposition est am pouvoir et nous na ensemble pour le bien de notre démocratie te fi am jël nit ki nga xamni Nous def que fii ngay yem dama la fay jëlee dugal la sama blindé indi la cité kër góor gi loolu mosul am tan te waxtu bi koy defee gis ngeen ay leader APR nekk def caravane pourquoi vouloir aujourd'hui mettre Ousmane Sonko ci situation bi nga xam ne benn opposant mosul ko am et li le président Macky Sall war xam mooy nit yàlla bu ko joxee popularité nangul ko ko parce que mënoo ko tereloo été lika wala lika war a li ko mu organiser élection libre et transparente kuy dem dem ñuy bokk bokk bu ko defee nu jàll ci leneen mënul nak tey jii wax ni dictature la bëgg indi ci Sénégal bi nga xamni ñun bi ni xeex demb ñongi ngi ak mom xamna ni li sénégalais yi duñ ko nam kon na taxaw alors qu'il est encore temps organiser élection libre et transparente ñi wala a bokk bokk moom du bokk bu ko défé ñu avancer mais le 8 février 2011 on était là ça fait 19 ans de présence politique dans l'opposition varié wuñu benn yoon xam ni ñun amul et dictature bu Gedef, douka def du ko fi def li nga xam ni mënul ne da Sénégalais FDS Nopal, noppal presse bi li ngeen nekkee ak mais tegu ko fenn FDS ni, mais ay père de famille